naafila 9 guddi juróom-ñeenteel gi ci weeru koor sopp nañ guddi julli ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon ak tabat ya daa ñetti yoon xul huwallaahu ahad benn yoon des ko ci bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dana mel ni it ku wàcc ab kaamil te des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da koo yendoo wooru fanaani koo jullee ak leneen ak leneen mbokk ko ci bëgg yeneen ñi leeral nga dellu ci xuratu ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke બસ ના કારણ Yeah.